redynamiser waat comité bi tey moo di ne comité bi dafa am solo ndax day day tax ñu mën a péncoo problème yi nga xam ne tey secteur industrie euh, mi ngi koy euh, jànkonteel ñu mën cee waxtaan mën cee trouver ay ay saafara mais également mën a teg ay ay stratégie industrielle yoo xam ne dana mën a permettre tey euh, ñu man a soqali suñu industrie mën ay capitaine d' industrie ba Sénégal mën a dem dem dem dem dem dem kanam tey son excellence le président Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen tey Euh, dafa bëgg ay industriels yoo xam ne euh, dañuy dañuy valoriser suñuy ressources euh, nationale ay industries yoo xam ne dañuy créer valeur ajoutée di di créer emploi tey bu ngeen xoolee tey am na benn projet bu nekk ci le plan Sénégal émergent muy projet écosystème de de construction bu ngeen xoolee tey composante yi ci nekk yëpp pratiquement mat na denn peut moo ci des ciment bi mi ngi fi mbat na sëkk ñu ngi koy produire fer bi mi ngi fi ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñu ngi koy produit ba mat ba mat sëkk karo yi mi ngi fi également donc li des mooy euh, sanitaire yi te am na ay industriels yoo xam ne pare nañ euh, pour def ko ci ci délai bu néew ñu def sanitaire yooyu bu ko defee écosystème de construction boobu ñu mën ko boucler te nag dañu ñëw fii di waxtaan gannaaw bi nga xam ne rendre naa compte son excellence le président Macky Sall conseil de ministres le 3 juin problème yi nga xam ne ñu nekk ci acier bi ñu ngi koy jànkonteel mu ne ñu woote tey waxtaan ci mbirum problème yi nga xam ne tey euh, euh, industrie yi nekk ci acier bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonteel tey bu nga xoolee xam ne ne nombre bu bëri la mat nañ pratiquement 133 euh, entreprises nga xam ne 80 pour cent yi presque ay ay ay petites et moyennes industries la boo xoolee investissement yi def lourd na trop 130 milliards di indi pratiquement depuis 2018 boo xoolee li ñu dugal ci économie bi mën na pratiquement 220 euh, milliards tey ñu ngi créer 10 euh, 000 emplois di créer pratique direct di créer 600 000 emplois euh, indirects donc tey ñooñu xam nga c'est des capitaines d'industrie nekk yoo xam ne war na leen mën a taxaw bu ngeen xoolee seen production également ñu ngi produire entre 450 000 tonnes ak 500 000 tonnes te boo xoolee tey demande nationale bi 400 000 tonnes la donc tey ñoom mën nañoo satisfaire tey le marché local mais gis nañ ne. ñu ngi jànkuwanteeg ay problèmes yu bëree bëree bëri lu mel ne importation euh, massive bi de de de fer à béton bi euh, ak lu mel ne également réexportation fictive bi les déclarations euh, à sous-douane mais également di ak problème électricité ak problème yu bëree bëri yoo xam tey ñu ngi koy jonkante ñu ngi koy jànkuwanteel yoo xam dañ cee war a waxtaan tey trouver ci saafara pour mën a protéger suñu industrie yi ba nga xam ne. vraiment ñu mën a compétir au niveau international au niveau de la sous-région ak au niveau international mën a euh, euh, joxante yeneen industrie bu baax a baax a baax donc tey may am yaakaar ne euh, ndaje mi ñu ndaje tey dinañ ci trouver solution ci problème yi nga xam ne secteur acier mi ngi koy jànkonteel di ko dund ñu mën koo saafara mën a génne document boo xam ne tey ñun ñëpp danañ ci ànd ñu mën koo appliquer mu nekk njariñu secteur acier bi nekk njariñu Sénégal donc ñu leen sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah